man je pense que président Macky Sall waroon na waroon na suuful suuful boo xam ne bu dee ci côté. suuful na. président Macky Sall waroon na suuful suuful boo xam ne war na dalal waa Macky Pastef. dans toutes nos sorties non attendez dans toutes nos sorties Macky Pastef gis nga Macky il faut mu am koo xam ni daf ko rus jox ko cër bu mu waxanteeg moom def ko. ci réew mi ci réew mi. Ah, su amee kooku kooku moo mën a nekk garantie. ce dialogue là. s'il était prôné par les khalifes ñu def benn coalition génne yabal nitu xool une personne neutre jox ko ni allez jaloge kenn du ko raté. ok léegi nag li ma la bëgg wax mooy. ñun bu ñu bis bis bu ñu gisee. je sais d' accord je suis bis bu ñu gisee nit koo xam ni wóor nañu kii bu kilifa gi waxee ak moom. li mu wax dana ko dégg te dana ko respecté te bu ñu tënkee jël dana ko jàpp. Mhm. mais ñun mag Pastef dinañ ci jox lu mu mën. ok loolu laa bëgg a dégg. mais non mais justement il faut ngeen comprendre que noonu. loolu a dégg mais ba loolu abagul dañuy toog di wax ni nii lañuy ñuy doxalee. ok ba ba loolu di am te di ko seet nag on a toujours fait appel suñu sotti yépp di wax ni ñi war a wax ñi mën a wax ñi yàlla may kàddu nañu wax te on est pour les rencontrer bu ñu woowee. Mm. kon ñun on a anticipé sur ça bu yàgg.